wasalli ya ahadu anni abada wasalli man ala allati nuuru bada saydina muhammadin wal ali wa sahbihi fil haali wal maali sëriñ Tuubaa ne wasalli yàlla mi nga xam ne kenn képp nga xan yi ci man mooy wuutuma ci yàlla na nga dolli xewal abada ci luy sax ba faw wasalliman xéewal gu ànd koog dollik wóolu alalati yàlla yàlla na nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne nooru ak leer la goo xam ne badaa feeñ na mu ne yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga dolli xewal yow mi nga xam ne kenn képp nga wuutuma ci mu mel ni maa ko def rek muy salaatu wasalaam mu mel ni man maa ko def waaye yow yàlla ci yow laa koy sàkku nga sotti ko ci kaw yonent bi nga xam ne jëmmi leer la mooy jëmmi leer ndax moom kat sunu borom tabaraka wa taala mooy ki ka sàkkee lenn rek ca leeram ga ba mu ko defee nag lépp lu yàlla sàkk moom da ko sàkk ci leer yonent bi alayhi salaatu salaam ngir teeralee ko ko moom jëmmi sunu borom ji lépp lu mu sàkkati rek da koo sàkk ci daraja yonent bi alayhi salaatu salaam ngir teeralee ko yonent bi salaatu waaye na ca leeram ga moom sunu borom ci la sàkk yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax man wasala yàlla nga doola tool yaa ahda yooyu yàlla mi nga xam ne kenn képp nga am ni jëlee ci man a ci lii sax ba faw waaye wasali ma tanga dooli góor a la ci yonent bi nga xam ne nuurun leer la goo xam ne badaa feeñ na sayidina leer la goo xam ne feeñ na te dootul soo mukk moom yonent bi barkeem jolli na fu ne dootul dog leeram jolli na fu ne dootul mu ne Seydina kooku mooy sunu sangal Muhammadun turam mooy Muhammad waaye salaatu googu wala ali mag waa këram wa sax bi ak ay saxaabaam fil xaali fii ci àdduna wal maali ak ëllëg yamal xiyam mu ne waxin ndakaj xal ni xabibal muminin wal muslimina wa xabibal muxsinin mu ne yow sunu borom al nii maa ngi lay ñaan nga def ma xen ndaka fa yow xabibal muminina may soppe mboole mboy gëm yàlla ñi mboolem ñi gëm yàlla damay nekk seen soppi xabibal muminina nga xam ne sëriñ Tuubaa euh, mboolem ñi nga xam ne dañu bëgg yàlla di jaamu seen borom maanaam dañuy doon soppi sëriñ Tuubaa dañ koy bëgg waaye dañ koy ndamoo waaye dañ koy puukurewoo ndax wax na ne mbégteem yi sant la mbégteem ngoy baax ñëpp la xaw ma nag ku baaxut waaye képp ku baax képp kuy sant sa borom kooku moom fokk la ngay liggéey sëñ Tuubaa ndax mëntu ñàkk te ko ñaanoon borom suñu borom xamal ko na ko defal naa la ko moo tax mu ne ni maa ngi lijaan nga def maa en daka fa yow yàlla xabibal mu'miniina may soppeek mboolem ñi gëm yàlla ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla nangu ne yàlla yàlla ñëpp ñëpp naa doon seen soppi man Sëriñ Tuubaa waaye nag naa doon soppe wal muslimina mboolem way jébbal ñi seen bopp yàlla ñëpp nga xam ne ñi nga xam ne dañuy wéyee santaane seen borom biñ nekkee muumin ba noppi léegi nag di wéyee santaane suñu borom bi ci kaw suuf mooy li leen yàlla digal léegi sañatuñ see euh, teg dara xam nañ ne lii la leen yàlla digal ñu di ci góorgóorlu nag jamono ju ne jamono ju ñu toll waaye nag maa ngi li ñaan nga def ma fa yow wa abibal na may soppeek mboolem booy rafetal ñi te mooy ñi nga xam ne dañuy def te yàlla tax nga xam ne indi na fi iman islaam ihsan maanaam moom jëmmi sëriñ bi na nekk soppeem ñi nga xam ne dañoo am iman waaye moom jëmmi bi nekk soppeem ñi nga xam ne dañoo am islam moom jëmmi bi na nekk soppeem ñi nga xam ne dañoo am ihsan te muy at tasawuf di def te yàlla tax ñaam iman ba noppi di wéy santaani suñu borom yi waaye yemuñ ca santaani suñu borom yi lépp luñ defati rek dañuy def te yàlla tax moo tax mu ne wacc maa ngi ñaan nga def ma indaka fa yow xabibal muminina may soppeek mboolem ñi gëm yàlla ñi waaye nag wal muslimina ak soppeek ma doon soppeek mboolem way jébbal ñi seen bopp yàlla wa habibal muhsinina waaye nag ma doon soppeek mboolem ñi nga xam ne dañuy reftal mooy def yàlla tax tamuy ak tasawuf mu ne wasal yàlla nga doolu xel yow yàlla yaa alim yow mi nga xam ne yaay xamaakun bi yaay ki teeg mboolem xam-xam yi maa ngi la ñaan nga doolu xel ani jëlee ci man nga wuutuma ci rek fii ab bat ci luy sax ba faw wasaliman ta nga dolli wóolu xala sax ci ci ki nga xam ne mooy ki dàq ci man alkaban njàqare lépp luy njàqare dang-dangi ak i coono yonent bi moo ko jëlee ci man dàqe ko ci man génn ko ci man ba mu set wicci mu ne kookee nag ci lay sàkku ci yow nga julli ci moom tey sëlmal ci moom sëlmal goo xam ne du am dakk ak julli goo xam ne du am yibukaay moo tax mu ne maa ngi lay ñaan nga dolli xéwal yow mi nga xam ne yaay xamaakoon bi peeg boo ne xam-xam yow yàlla xéewal goo xam ne da nga koy dolli xéwal ci yonent bi da koy julli ci yonent bi salaay salaam ma ci mu mel ni maa ko def waaye nag ci luy sax ba faw lay nekk nanga nga dolli gu wóolu ci yonent bi nga xam ne mooy ki dàq ci man li nga xam ne moom mooy njàqare sayidina kooku mooy sunu sang muhammadin turam mooy ak waa këram wa sahbihi ak ay ak ëllëg yamal xiyam mu ne walli yaqut alma sawi salaahi waktub bila isalatin falaahi mu ne yow sunu borom waqut maa ngi lay ñaan nga wommat li ñeel ma xel ma sawi salaahi muy xam-xam borom ak mbaax yëpp ñi baax ñëpp ñi nga xam ne dañoo defaru ba noppi di defare mboolem ñi yiw ñëpp mboolem li ngay dégg lu baax rek xam-xamam ba maanaam sëñ Tuubaa ñan na borom suñu borom matal ko ko may ko ko xam ne loolu wax na ko ci barab yu bari dem na sax ba ne xam-xam yonent sax suñu borom jox na ko xul li ulama asfiya kal awliya wala ulama wali asim na liya xam-xam awliya uy yonent yi boroom xam-xam yëpp nee xam-xam yëpp ak palaa seen palaa yi la leen yàlla joxoon ca ay xereñ xereñteeg lépp sunu borom jalar bi na ko mat ko ba noppi jox ko mu njëmi sëñ bi moo tax ma ne waxut maa ngi ñaan ko wommat lii ma yow yàlla xel ma sawi salaay xam-xamu borom mbaax yëpp boolem ñi nga xam ne ñu baax ñi ngay dégg ñëpp seen xam na nga ko wommat jox ma ko gis nga itam wax na ne tawhiitu yonent yi sunu borom wommat na ko may ko ko jox ko mu ne waaye wokkutub maa ngi la ñaan nga bind falaayi sama texe bi lay isaalit ni ci lur ak dëñal maanaam ci lur ak far bi lay isaalit ni ci lur nga koy dëñal gannaaw boo ko bindee ba noppi sama texe ca lawul man kooku moom na ko bind noonu rek te doo ko dëñal mukk dootoo ko far loolu fu mu ko wax bëri na saadati bi xëyri maxwin kutibat wa kaw neel abdul qadim xat sabat nee na sama texe bind nañ ko ca lawul man fos ca umul kitaab te kenn dootul ko farati falaahi bi fadlillahi fii law yi jara bi xëyri miha in doona makrin wala xawfi sama texe ndaw na ci mbaaxu yàlla ci ngëneelu yàlla daw na ci alawaja xalima nga bind na ko su dootu ko farati xam ne wax na ko ci baraw yu bari mu ne waxtu maa ngi la ñaan nga bind falay sama texe ca lahul mahfuz ca umul kitaab bilaa isaalatin ci luru ak dëñal boo ko bindee ba noppi bu ko dëñe bu ko dëñal ndax ñaareel suñu borom dana bindal nit ki ne kii kat ko war a texe la ah doomu aana ba topp bakkanam rek topp bakkanam ak topp bakkanam suñu borom bind kii kat dafa a texeeti wa yusabitu wa indahu umul kitab yàlla si coobaram lay jëfee mu ne wam wamu huntiha saqaawatin li nahwi wa jih makaarihi ma an bil mahwi mu ne yow sunu borom wam hu maa ngi lay ñaan nga effacé nga far intiha saqaawatin jublu texee ji li wi ñeel samay wàll maanaam texee ji bu fekkoon ne dafa nar a jublu sama wàll wala am yu koy sabab ba ma nar koo def na nga ko far bam seet wicc ba dootuma jublu mhm. wambu maa ngi lay ñaan nga far intiha jublu sa xaawatin ak texee di li na fi ñeme ñeel samay wàll bu fekkoon ne dama ko nar a def sax nanga nga far bis ni ki tey dootuma doon kuy texe kuy texee di mukk léegi naa doon ku texe na nga far jublu texee di ñeel samay wàll nanga ko far maanaam daal ci gàttal na nga ma bindal ak texe waaye yow suñu borom maa ngi lay ñaan nga jëmale makaari yi lépp lu ma naqari maxan mboole seen bil max wi ca farga ànd ko farga lépp loo xam ne naqari na ma rek maanaam nanga ko ndaq far ko ci man ba mu set wicc mu génne ci man mhm. wa jeex maa ngi la ñaan nga jëmale makaari yi lépp loo xam ne daf maa naqar rek ma an mboole seen lu man di doon rek bil ma wi ànd ko farga na ko far mu génn ci man ba set wicci na géem na fay ci man ba xam ne léegi dana tàggoog man dana dem ma dem lépp lu mu naqar rek na ko jëmale furun man maanaam far ko mu génn ci man ba set wicci mu ne wasali yàlla nga doolu xel yàlla tif yow yàlla mi aji ñeewantu ji xan ni jëlee ci man bi salaam xéewal gu ànd ko mucc xalali ci yonent bi sallallahu alayhi wa nga xam ne bii ci dara jaam wa xabta ci nga maye yow yàlla lii ñeel ma alkalaam alquran mu ne yow yàlla maa ngi li ñaan nga doolu xel yow mi nga xam ne yaa tudd allatif yaay kuy ñeewantu say ay say jaam te nga dollig wóolu xéewal goo xam ne dafay ànd koog dollig wóolu maanaam nga wuutuma ci mu mel ni man maa ko def waaye nag nga julli ko ci yonent bi nga dolli xéewal ak mu ci yonent bi sallallahu alayhi mi nga xam ne ci dara jaam ci nga ma mayee alxuraan nga xam ne kalam bi mi ngi ci jublu alxuraan ne sunu borom moom mooy ki ko may sayidina kooku mooy sunu sang Muhammadin turo salaatu góog wala ali moo ki sax bi ak ay saxabaam fi xale fii ak ëllëg yowal xiyam mu ne waxab liyel yowma bi xëyri salla bi fii abadin suxli wa sunu borom waxab maa ngi la nga may li nga may nga may yow yàlla li ñeel ma al yow ma tey jii may diiyanteeg yow di wax ak yow nga may ma bi xayri sàlla bi ci lul ak rink muy jëlaat nangu fii abadin ci luy sax ba faw nga may ma lan muy suxli samak laaj suxli samak laaj waaye nag waxoo ko mat la bi ak lu kawe samak càkkutéef yow suñu borom tey jii maa ngi ñaan nga may ma samak laaj te muy samak pajuk aajo li nga xam ne moom laa moom laa laaj di la ko ñaan maa ngi lay ñaan nga may ma ko tey jii waaye nanga ma mayee nag ma may sax ba mayaale ma loo xam ne dafay faw ko sama njort dafay faw ko sama njorto waaye nag loolu yëpp boo ma ko mayee ci loolu nga koy rinkiwaat jëlaat ko ndax xam bi xam ne yàlla lépp lu mu def rek sañ na ko jëlaat lépp lu mu la jox rek sañ na ko jëlaat ndax kenn ku nekk may yi nga may yi nga yor suñu borom dala ko abal rek danga fay bayee ko suñu borom joxaat ko keneen léegi-léegi nga nekk fi di dund di dund sax léegi-léegi nga nekk fi di dund suñu borom rocc may joxaat ko keneen kon suñu borom mooy ku sañ lépp moo tax mu ne ko waxab maa ngi lay maa ngi lay ñaan nga may lii ñeel ma al yawma tey li sama laaj fii abadan ci li sax ba faw wa foo mat la bi ak lu kawe sama càkkuteef waaye boo mayee lii yëpp bi xëyri salbin ci lu dul nga koy jëlaat bi xëyri salbin ci lu dul nga koy rinkiwaat ndax yàlla mooy borom sañ-sañ